setelah kalian karankat payakom inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ñi eh, eh, am naqar ak tiis di leen tàgge li nga xamante ni moo di njoogu kuyaate di bàyyi ci nga xamante di papay cheikhu kuyate di joueur international sénégalais bi nga xamante jamono ji ma nga fële ca kaan ci jogante bi nga mi ngi am ca Côte d'Ivoire di CAN 2023 moom Diop Kouyaté di papa yi Cheikhou Kouyaté nag gaañu na niki tey jii ci suba euh, ñu fas yéene ko rob suba incha allah rabbi ci àllarba ji le 17 janvier 2024 ñuy ñaan yàlla jéggal ko ay rëcc-rëccam xaare ko àjjana di famille bi mu fi bàyyi yàlla teg leen loxo may leen xolu muñ ñu ngi koy jàll képp kuy sénégalais di koy jaal le monde sportif di ko jaal njaboot ak gi mu fi bàyyi ki nga xamante ni moo di Cheikhou Kouyaté ci li jëf.